ci yeggali waxtaan wiñ doon def ak yéen euh, mu mel ni nag bi ñuy tàmbali koor gi waxoon nañ ci waajtaayu koor ak luy njariñu koor waaye it waxtaan ci nuñ ko war a waajale ak nuñ ko war a dundee ba gën a mën a jariñoo ci waxtu wu tedd woowu sunu boroom tuddee ko ay yaamam maadudaat muy ay bis yu yu néew yoo xam ne daanaka bariwul te boo ngeen xoolee bañ ci duggeek léegi ni waxtu wi di gaawee euh, fi mu toll nii daanaka ñu ngi ci jeexantal gi ñu waxoon ne nag woor dafa nekk lu mel ni ab école wala ab euh, jamono boo xam ne nit ki da cee war a tàggatu defaraat ci boppam jàngaat ci lu baree baree bari defaruwaat Euh, muy autocritique muy muhaasabatu nafs jàng ci lu bëri it waaye profito ci waxtu wi jaamu yàlla lu baree bari def ci lu baax loo xam ne mënu koo am ci yeneen waxtu yi wala ci yeneen bis yi wala ci yeneen weer yi nit nag bu nekkee am lu mat fanweeri fan di ci tàggatu ci dara su loola weesoo war na cee war a mën a am résultat Euh, loolu nag moo tax tey ñu bëgg waxtaan ci benn tomb bu am solo muy tëjee ko weeru koor bi euh, xam ngeen ni ci weeru koor waxoon nañ ne dinañ ci jàng lu baree bari ndax lislaam li nga xam ne moom la santaane euh, wala sunu borom li tax mu binduñu ñu mooy ñu jaamu ko wax ne wama xalaqtul jinna wala insa illa li yaabuduni binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma jaamu googu nag ci gàttal tuuti rek mën naa ko dugal wala xaaj ko ñeenti ñeenti xaaj ci ni ko lislaam tërale su fekkee ne lu ñu tuddee istiqra muy jëfandikoo xel topp texte yi di ko analyser di ko xool intellectuellement ba mën koo séddale ci ay xaaj jàpp nañ ne lépp loo xamante ne nii yàlla bëgg na ko sàkk ko ci jaam bi mu di ko def muy lu jaam bi mën a def loola jaamu yàlla lañ koy tuddee lépp lu neex sunu borom te jaam bi mën koo def mu neex sunu borom loola jaamu yàlla la dafa mel ni li ci ëpp noonu la ko borom xam-xam yi euh, waxe ne lan mooy jaamu yàlla ginnaaw bi ñu euh, waxee lu baat bi di tekki mooy torox lu jëm ci sunu borom waaye baat bi li muy tekki lu gën a yaatu mooy bépp jëf wala wax wala pas-pas boo xam ne nit ki mu ngi koy def te loola neex suñu borom loola jaamu yàlla lañ koy jàppee ñu gis ne jaamu yàlla yi daf ci am lu ñuy tuddee ibadatu aqida muy jaamu yàlla goo xam ne ay xolo xolo koy def muy pas pas-pas muy fas dara ci sa xol lu mel ni al al imaanu bi wujudillahi muy gëm walla fas ci sa xol ne yàlla am na muy amuk sun borom gi waaye tamit kennal ko ne moom benn benn yàlla dong moo am gëm tamit li nga xam ne moom lépp la moom la wax ci ay jikkoom ak i meloom nga gëm ko saxal ko loolu kon gëm-gëm la loolu façon jaamu yàlla la mooy li nit ki di gëm beneen bi mooy ibadatu sha'ira muy ginnaaw bi mu gëmee ba noppi muy am na ci façon jaamu yàlla yoo xamante ne nii ay jëf la ay symbole la yoo xamante day day symboliser l'islam lu mel ni julli ak woor ak dem maak yooyu ay sha'ir la wa man yu'azzim sha'ir allahi fa innaha min taqwal xulub ku màggal euh, sha'ir sunu borom yi muy muy euh, symbole am yi wala yi mu teg ay ay ndigalam ñuy di ko jëfe loola ci màndargam ragal yàlla la bokk kon loolu ci façon yi la comme mu am ci Euh, jaamu yàlla goo xam ne pas-pas la am ci jaamu yàlla goo xam ne danga koy jooxe ci say cër lu mel ni julli ak woor waaye am ci jaamu yàlla goo xam ne ci jikko la mooy ni nit ki di jikko woo lu mel ni lan lu mel ni euh, jéggale lu mel ni muñ lu mel ni euh, am fit bañ ragal lu mel ni dimbalante loolu lépp ci ay ay lu mel ni woyof ci sa ci sa ci sa ci sa moroom yi bañ a diis loolu lépp façon jaamu yàlla la muy ibaadatu axlaq muy comportement te diine lépp comportement la xam ngeen ne waaye mu am ci jaamu jaamu yàlla goo xam ne muy ibaadatu muamala ci jëflante diggante nit ak nit lu mel ni as sidq nit ki booy jëflanteeg sa moromu nit da ngaa war a nekk nit ku correct nit ku dëggu euh, respecte sa kàddu tamit hmm? respecte sa kàddu waaye tamit bañ a fausser yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne ci jëflante diggante nit ak nit euh, ginnaaw loolu kon ndegam loolu lépp lu ñuy def mu neex sunu borom jaamu yàlla la te ñu ngi ci doon ñu ngi ci woor di tàggatu ngir defaraat suñuy jikko defaraat suñuy pas-pas te yéen ñëpp xam ngeen ne yàlla subhanahu wa bi mu waxee ci alxuraan farataal koor ca euh, mujjantalu aaya ba bi muy dégle koor muy kutiba alaykum siyaam yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquun la ca teg bu ñu seetee mooy lu bari lu muy digle da koy tëje la nga xam ne moom lañ cay xaar la nga xam ne moom la ñuy sàkku ci koor mooy waa muy ragal yàlla ragal yàlla nag comme ni ma ko waxee woon dafa yaatu lool mooy nekk ci li nga xam ne moom la sunu borom sant di def ay ndigalam di bàyyi tereem ngir euh, yaakaar fayam waaye tamit ragal mbugalam loole ci gàttal mooy ragal yàlla léegi nag lu jëm ci wàllu weeru koor wi ak liñ ci mën a jànge lépp lépp lépp bari na waaye ñu ngi jublu euh, jeexintalu koor gi mu am nag benn euh, mbir boo xamante ne ni lu mu bëggoon la ñu taxaw ci tuuti ngir dafa dem ba nekk aada waaye jaamu yàlla la goo xam ne yàlla da santaane lu jiitu loolu muy xam nañ ne suñu demee ba nga xamante ne nii weeru koor wi jeex na ñuy jooxe sunna si nga xam ne moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sant muy salaatul iidayni muy jullik euh, euh, mbooloo gi nga xam ne moom la ñuy def su noppee baaxoo nañ di balante àq ku gis sa moroom ne ko baal ma àq mu ne la baal naa la loola dem na ba nekk aada waaye ragal naa ne ñu bari ci ñun buñ koy def lu ci ëpp yàlla rekk a xam waaye dafa mel ni ci làmmeñ yi rek lay yem tey nag ma bëggoon a profité pour waxtaan ak yéen ci wàllu baat boobu ñuy wax muy baalonte àq mooy lan ci lislaam ak ban taxawaay la am mu mel ni euh, li ñuy tuddee alaafu ci baatub arab muy jéggal jéggale ak jëllale wa samaha way tolérance ñu koy wax jëllale dafa nekk lu am solo loo xam ne ci lislaam ci euh, mbir yi gën a am solo la bokk ngir wane loolu salo gi am damay tàmbalee ci wax ne loolu ci turi suñ borom yi la nga xam ne dafa tuddee boppam ar rauf ar rahim tuddee boppam al ku xool asmaullahi al xusna yi da nga ci fekk tur yooyu loolu day wane dayo boo xamante ne nii jikko jooju wala melo woowu ni mu amee solo walillahi al asmaul xusna sunu borom ñeel na ko jikko yu rafet yépp yu tedd yépp kon ñu xam ne loolu benn la ci jikkoy sunu borom yi ngir wane rek ak màggam kon ku ko jikkowoo muy di jéggale ak di jëllale yor nga ci yenn ci meloy boroom bi subhanahu wa taala ca sa na nga xamante noona nga toll ndax sunu borom kenn du moom du kenn laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir moom melut ni kenn kenn kenn kenn melut ni moom qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulat walam yakun lahu kufuwan ahad kenn du ko melal ni kenn kenn kenn kenn doonte dañuy wax ne yàlla dana dégg dana gis waaye mënuñoo nattale sunub gis ak sunub dégg ci gisu yàlla ak déggam waaye fañ ca toll ak nañ ca mel loolu ñun ñun la ñun la loolu bokkul ak ak ak kii waaye jikko ja jikko la joo xam ne doomu aadama mën na koo jikkoo beneen bi mooy euh, ci jikkoy yenent bi sallallahu alayhi wa ci la bokk muy bari na mën nañ cee jël rek lu lu néew a néew a muy aaya boobu nekk ci suratu tawba sunu borom subhanahu wa taala di ci wax laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufur rahim loolu jikko jooju mu melale yenent bi sallallahu alayhi wa muy rauf rahim ku bëri yërmande waaye ku mën jéggalaate kon loolu dafa bokk ci jikkoy yenent bi sallallahu alayhi wa te ñun dan ñoo royloo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana hmm? nekk na ci yéen hmm? ah, yenent bi sallallahu alayhi nekk na ci yéen ab roykaay xam ne dangeen ngeen koo war di ko roy ci jikko di ko roy ci lépp waaye tamit dafa jikko jooju may wax muy baatu jéggale dafa nekk ci jikko yi nga xam ne jikkoy jullit ñi yi nga xam ne yàlla daf ko sopp ci ñoom digal leen ko tamit gis ngeen aay ci bari na lool wa ibaadu rrahmani allazina yamchuuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaaman loola benn la ci aaya yi nga xamante ni nii borom bi subhaanahu da ciy tàgg fukki jikko yu am solo mu jël ci benn ci jikko yooyu mooy ñi nga xamante ne nii dañuy jëggale di jëllale waaye tamit woyof tollu ci kaw suuf ba bu ñu taseek ku leen tooñ ñu mën koo ñu mën koo jéggal loola kon loola dafa dafa mel ni aaya booba dafa ñëw fii mawdiil madh moom ci contexte boo xam ne yàlla da leen di tagg te ku yàlla tagg kon ci jikko wax dëgg yàlla comme ni mu ko defee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la azim kon jikko jooju jikko ju màgg la niki noonu am na ci aaya boo xam aaya yi bari na ci alxuraan mën nañ cee wax li tax ñuy tegtaloo ci alxuraan dafa am solo ndax alxuraan mooy Eh, leer gi nga xam ne moom la sunu borom wàcce ci doomu aadama ngir mu mën cee niitoo ba xam li ko sunu borom sant ak li ko sunu borom tere xam ngeen ne eh, Sëriñ Tuubaa mu ngi ci way lu bare bari bari kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarbi mooy téere bi nga xam ne buñ ko jàppee rek mooy eh, ci te di ci niitoo rek mucc ci lépp mucc àdduna mucc alaxira te sunu yaakaar lépp ci téere boobu la nekk moo tax lépp lu nu mën di wax ci téere boobu rek la ñuy la dellu mooy mooy mooy ndeyu xam-xam yépp lu waay mën a wax ci lislaam euh, foo ko mën a tibbee foo mën a jëlee waxi jàmburu ñu ne ci lislaam lay wax ci téere booba ca la koy tibbe amul feneen amul amul feneen foo xam ne mën nga faa jëlee lu ëpp alxuraan moo tax sunu mag ñi tegoon ko ca kaw laata ñuy indi dara alxuraan la ñuy la ñuy jiital ci lépp gis nga muhammadu rasulullah walladina amanu maahu ashiddaun ala alkuffari ruhama baynahum tarahum rukaan sujjadan ba ay ba jeex waaye li ci gën a am solo gis nga dafa wan dafa melal jullit ñu ñu nekk nit ñoo xam ne dañoo bari yërmande te nit ku bari ne mooy koo xamante ni nii mën naa jéggale ana nag lan mooy jéggale lan mooy jéggale jéggale mooy nit ki tooñ la fexe ba mën a maîtriser sa bopp métit ba ngay yëg ci tooñ boobu nga mën ko supporter nga mën ko nangu ko yanu euh, mu metti la waaye nga bës sa xol ba noppi métit ba nga bàyyi ko mu dem nga génne ko waaye doo ko jàppee waa ji nga xam ne moo la tooñ loolu nag dafa nekk loo xamante ne nii dafa laaj ay étapes yu am solo dafa laaj ay étapes yu am solo waaye dafa laaj yeneen jikko yoo xam ne da koy jikkoo ba noppi doog a mën loolu waaw kon daal mën naa ne eh, jéggale moom mooy nit koo xam ne dañ koo tooñ def ko lu ko metti waaye mu mën a fayu wala mu mën a ndax nit dafa baaxoo bu fekkee ne def nañ ko dara lu ko metti ba mu am naqar eh, ay sentiment ak ay émotion mën na koo yóbbu eh, tàngal deretam ba loola yéeg indil ko loo xam ne mën naa tax mu def ay réaction yu agressif waaye noonu mu mën a yoree comportement bu agressif deretam tàng mu tëb dóore wala mu wala wala mu tontu tontu bu bu bu ñagas noone tamit la amee yeneen ay maani wala yeneen yoo xam ne bu nekkee ci moom mën na ko may ba mu maîtriser xolam ba degré booba nga xam ne moo waroon a tàngal deretam ba mu jóg di défendre boppam Euh, loola mën na koo dimbali tamit ba ba mu ba mu dal ba mu ba dal ba kalmu ba jëfandikoo xelam ndax nit su meree day tàggook xelam bu boobaa xolam rek fay sës te saa soo jëfandikoo sa xol ci jamono bi nga xam ne mer nga boobaa mën ngaa wax lu ëpp wala nga def lu ëpp kon daanaka mën naa ne rek daanaka jéggale fi muy njëkk a tàmbalee mooy nga maîtriser sa bopp ba pare te loolu dinañ ci dinañ ci ñëw Euh, léegi jéggale nag dafa nekk tamit ginnaaw bi mu nekkee ci jikko yi sunu borom bi nekk ci jikko yi yenent yu tedd yi nekk it ci jikko yi jullit ñi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala daf leen a tagg dafa nekk ndigal loo xam ne sunu borom subhanahu wa taala ko digle digal ne ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xuz xuzil afwa wa amur bil urfi wa arit anil jahilin hmm? jàppal ci ci jéggale dayal def jéggale muy sa muy muy sa mbir tey digle lu baax te dëddu ñi nga xamante ne nii dañoo réer mooy tooñkat yi nga dëddu leen maanaam bul fayantoog ñoom loolu la ci jublu ginnaaw bi ko yàlla digalee moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jéggale waaye dafa digalaat jullit ñi tamit ñu jéggale mu ne wal yaafu wal yasfaxu dee leen jéggale tey jéllale alaa tuhibbuuna an yaxfira allahu lakum xanaa bëggu leen yàlla jéggal leen wallahu xafurun rahim yàlla de mooy ki nga xam ne mooy jéggalaa kon bi waaye mooy ki nga xamante ni mooy aji aji ay aji yërëmaa kon bi mooy ki nga xam ne mooy mooy yërëm moom moom moo bari yërmande lool waaye te yërëm tamit euh, jullit ñi ak ñi nga xamante ni nii jaar nañ ci ci ci gëm nañ ko gis nga bokk na ci ñaari jikkoom yi nga xam ne saa su nekk dañ koy wax te mu ëpp ci xam-xam ci ci ci alxuraan daanaka mooy arrahman arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim da nga loolu kon dafay wane rek e, jikko bi ñuy waxtaane nii nga xam ne noonu la amee solo jëggale ci boppam dafa nekk e, day tegtale nit ki bu fekkee mën na jéggale day day tooñ la nga nga nga nga nga sa sa ki nga xam ne moo la tooñ e, màndargam doole la ndax ki nga xam ne moo am doole mën a maîtriser boppam euh, kooku moom mooy ki nga xamante ni mooy jéggale euh, màndargam tedd ngala tamit hmm, ku tedd rek mooy mën a jéggale waaye baadoole rek moom mooy faju tamit moo tax yonent bi sallallahu alayhi bi muy wax jàmbaar dafa wax ne jàmbaar mooy ku mën a maîtriser am meram maîtriser boppam euh, saa su meree du tëb di dóore wala muy xaste wala muy saaga wala muy wax-wax ju ñaaw wala muy jëf-jëf ñaaw waaye mooy ki nga xamante ne nii euh, fu ko mën a fekk su meree rek du jiital xol ba waaye xel ma lay lay jiital ba mën a maîtriser loolu mu ne laysa shadidu bi saraati innama shadidu man yamliku nafsahu indal xadab mooy ki nga xam ne mën na maîtriser meram ba téye ko euh, euh, mën a tamit jéggal ki nga xamante ne nii moom moom moo ko tooñ jéggale ci boppam it mbokk yi dafa nekk loo xamante ne ni njariñam dadul yam rek ci ki nga xam ne moom lañ jéggal waaye kiy jéggale ci boppam balaa jéggale di jariñ kenn moom mi jéggale ci boppam moom lay njëkk a jariñ lu tax mooy parce que jàpp mer ak téye mer dafa nekk loo xamante ne ni day indi jàngoro ci biir nit ki ci boppam ci biiram te waxuma rek jàngoroy ruu waaye même physiquement sax da lay néewloo doole dafa mel ni daanaka poson rek boo xam ne da dafay nekk ci nit ak xol boo xam ne day fees dell ak naqara ndax nit bu la tooñee jéggaloo ko nga jàpp mer moomu ci sa biir xol saa soo fàttalikoo jëf ja wala nga dox ba dajeek moom da nga am loo yëg ci sa xol naqar ca tooñ bam la tooñ moo xam tooñ ba da nga caa mën dara wala mënoo ca dara waaye fekk jéggaloo ko mooy génne mer mooma ci sa biir xol ba mu set wicc te yéene ko jàmm toujours ci jafe-jafe ngay nekk toujours ci xol bu naqari ngay nekk ngir nag fexe ba xol boobu set ngir noppal sa bopp la gën a baax ci yow ci sa euh, xel ak ci sa xol mooy nga fexe ba ba jéggal ko ba ba ba ba ba fàtte li nga xam ne moom la la defoon moo tax loolu dafa nekk loo xam ne lu lu lu am solo la yàlla nañu ko yàlla may muy may am xolu xolu xolu xolub jéggale moo tax ñi jéggale te duñ jàpp mer ci ñi gën a wér ci biir ak ci biti ci la ñuy doon ci nit ñi waaye képp kuy jàpp di ko téye euh, ci ñi gën a wére ci àdduna ci ngay bokk te bokk na ci liy gàttal fan sax muy jàpp mer ak téye ko ndax dalay day day indi ay jàngoro yu bare bare bari ci ci biiru ci biiru ci biiru nit ki bokk na la ca gën a kii mooy xol bu naqari eh, yàlla borom bi subhanahu wa taala dafa tamit wax ne ñi nga xam ne ñooy jéggale dañoo ñoom muy jéggale dafa bokk ci màndarga yi nga xam ne mën nañ cee mën nañ cee xàmmee ku nit ku ragal yàlla nit ku ragal yàlla dafay dafa dafay jéggale li koy tegtale mooy fii nga xam ne dafay soññe daal di wax ne wasaarion ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ard uiddat lil muttaqin leen ngeen jëm ci njéggalu sunu borom ak àjjana joo xam ne moo gën a yaatu asamaan ak suuf àjjana jooju nag li muy yaatu yaatu yaatu ñiñ ko waajalal mooy ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla aay bi nag continuer di leeral ñii ragal yàlla ñooy ñan mu ne allazina yunfiquuna fi sarra'i wa darra walkaazimina alxaysa wal aafina an innaas wallahu yuhibbul muhsinin mu ne ñi nga xamante ne ni dañuy jël seen alal di ko joxe ci yoonu yàlla ci waxtu jàppandi ak waxtu wu muy jamono bi ngay am lu bari ak jamono bi ngay am lu néew jamono bi muy yomb ak jamono bi muy jafe lépp soo amee rek da nga koy bokk ak nit ñi waaye dangay jël di def ci yoonu yàlla yàlla nag kenn mënu koo defal dara xam ngeen ne kon li ma ci jublu mooy jaamam yi mu ne waaye ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla it bokk na ci ñooñu wal kaazimiina al ghays mooy ñi nga xam ne dañuy téye seen mer nëbb ko ba ki leen tooñ du duñ ko gis ci xar kanamam lii nag lu jafe la mooy nit tooñ la nga mën a war a mën a mer ba wan ko ko waaye nga nëbb mer gi ba waa ji xamut sax ne mer nga lii moom jikkoy jikkoy jikkoy sàngal aaya bi nag mën nañ cee jàng lu baree bari loo xam ne daanaka mën naa ne doy na doy na aw aw aw waxtaan ma jël ci ñaari tomb rekk ci aaya bi bu njëkk mooy taxaw ci tuuti wasaarion wasaarion dafa nekk gaawtu leen bu sunu boroom jëfandikoo al amr bi muy wasaarion gaawtu leen ci nangam loolu dafa mel ni daanaka njëkkante la njëkkante lu ñuy njëkkante mooy loo xam ne daanaka euh, mën gaawtu da cay am maanaam kenn waru caa yéex ndax lan muy njariñ li ca nekk xam nga bu ñu ubbi woon tey ab banque euh, jox ñëpp ay carte ne leen dem leen ngeen jël lu leen neex defe naa nit ñi danañ ci gaaw lool ci ci waa bëgg dem ci banque boobu pour récupérer maximum fii tamit sunu borom subhaanahu taala dafa mel ni dafa jox ñëpp opportunité mooy lan mooy bis yi su la joxee ngay dund jox la ay bis jox la ay ay semaine jox la ay weer jox la ay at dafa mel ni daf ne la gaawal ci capital bii ma jox jëm ci njéggalu sunu borom ak jëm ci àjjanaam ji yaatu ji noo koy amee lan mooy loolu lan lan lan lan mooy njëgu njëgu àjjana jooju mooy fexeel ba bokk ci jikko yi rek allazina nu fi saraa'i wa dara soo fexee ba lu la yàlla dénk ci alal nga fexe ba jaamu yàlla ci jaamam yi di leen ko jox xamal ne yaa ngi ubbi yaa ngi daw ay xel jëm ci njëggalu suñ borom jëm ci àjjanaam ji su fekkee ne képp ku la tooñ nga nëbb sa mer ba noppi jéggal ko xamal ne yaa ngi daw ay xel jëm ci àjjana yi sunu borom subhanahu wa kon dafa mel ni yoonu àjjana bi mu ngi nii suñu borom ne yaatu na daw leen ngeen njëkkante dafa nekk nag yoon woo xam ne ñépp mën nañ ci soobu di daw ay vitesse te kenn du laal sa morom amul buuxante yoon wu yaatu la amul siisante amul iñaanante amul soxorante moo tax ma yàgg wax ne euh, mbirum sunu borom dafa yéeme ndax euh, lépp loo gis lépp lu baax lu tax ngay am ngërëmu sunu borom ñu ca nekk ñépp ñu ca nekk di xëccoo wala wala ñuy jiiroo wala ñuy ŋaayoo wala nga gis ca iñaan wala soxor wala liggéeyante wala wala daraja wala xëccoo rek xamal ne loolee mbirum sunu borom nekku ca li tax mooy dafa yaatu yaatu goo xam ne loolee lépp du ca xam nga nit du xëccoog moroomu nitam maa la gën a baax wala maa la dàq joxe wala nangam ak nangam bu jëmm yàlla rek a tax wala wala julli wala jéggale wala boo xoolee valeur u l'islam yi yëpp xëccoo du ci war a mën a am li tax mooy dafa yaatu kenn kenn kenn mënu koo jeexal am maa nag tey bu nit ñi doon xëccoo àdduna tey wala daraja wala yooyu foofa ngay gisee iñaanante ak soxorante ak bañante ak liggéeyante ak wax ju ñaaw ak yàq der ak lépp ngir àdduna moo baaxoo noonu moo tax ku bëgg mucc tàbbi àjjana fexeel ba yii ma tudd nga bañ koo xëccoog jaamu yàlla yi bàyyee leen ko bàyyi bàyyee leen ko ndax yooyu jarul xëccoo moo tax àdduna bi lépp xëccoo bari na fi li tax mooy da ngay bëgg jël sa wàll ba noppi jël sa wàllu moroom loolu saa soo ko defee rek euh, xëccoo am xiiroo am ŋaayoo am waaye ñi nga xam ne yàlla rek rek rek moo leen soxal ngërëmul yàlla rek la ñuy wut àjjana rek la ñuy ñooñu du ñu taloo xëccoo kenn moo tax sunu borom nee na wasaarion kon gaaw leen gaaw gaawtu boo xam ne loo daw daw ay xël yoon wi yaatu na yaatu woo xam ne doo fel kenn te kenn du la felit incha allahu taala kon loolu benn la ci njariñ yi nga xamante ni aaya bi lëmboonu ko beneen bi mooy ci aaya bi dama ci jàng ne sunu borom dafa tegale li ñuy wax muy njëggale ak jëllale dafa mel ni sunu borom daf ko tënk ci ñetti étape benn bi mooy wal kaasimin al xaysa nee na bu la nit tooñee dafa mel ni dafa am ñetti étape yoo xamante ni nit ki war na ci jaar nim ko tegalee it bu njëkk bi moo gën a yomb bi ci topp beneen ba ca topp moo gën a yomb bi nga xam ni moom moo mujj bu njëkk bi daf ne wal kaasiminal xaysi nit ki tooñ la nga am lu la naqari yëg ko nga mën a mer wan ko ko mën a fay wan ko ko waaye nee na nga nëbb mer mi téye ko ba du ko xam maximum beneen bi mooy nga weesu daraja jooju maîtriser sa bopp ba pare ginnaaw bi nga meree ba yëg mettit woowu nee na nga daal di wala en fii naa li naas nee na nga jéggal ko mooy méttit boobu ak yépp nga nangu ko supporter ba pare baal ko ko doole def benn benn benn réaction ana lan mooy baal mooy nit ku dul fayu rek baal mooy nit ku dul fayu nga jekku ba noppi jéggale wala afina anin nas boobu nag moo gën a jafe sax na na na mer ginnaaw boo ko muucoo ba noppi mer mi waaye nag nee na nga bàyyi ko mu génn wallahu yuhibbul muhsinin boobu mooy ñetteelu daraja bi mooy nga al ihsaanu ila man zalamaka mooy nit ki nga xamante ne ni tooñ na la ba noppi nga nëbb mer mi jéggal ko ba noppi waaye nag ji taraanga mooy nit ki tooñ la ba noppi mën naa ko misaal ci mën nga koo ñaanal yàlla na ko yàlla jéggal gis nga loolu yow nit ki tooñ la ba noppi nga koy ñaanal yàlla jéggal ko yaa maalikal mulki yaa man jàlla an xawadan irham jami al wara yaa hadiyan radaa gis nga loolu Serigne Touba wax ni ñëpp ñëpp ñëpp la ñaanal te alwara ay noonam dañ cee dugg mooy ñi ko jàppoon sonnal ko lool ñépp la boole ñaan yàlla mu yërëm leen jéggal leen gis nga afawtu anil aadai turran li wacci man nafahum li xayri sarmadan lestu adfaaw ay noonam foofu tane da leen a seppi ne jéggal naa samay noon toppuma leen ci dara dara dara dara dara gis nga loon kon kon loolu dafa dafa mel ni sëriñ bi kon daraja ju kawe yooyu yëpp sëriñ Tuubaa daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko daal di jëfe kon nag ñetti daraja yooyu dafa am solo yooyu ku ko ku ko ku ko am sunu borom subhanahu wa taala nee na ñooñu am nañ maxfira min rabbihim waaye tamit an am nañ jannatun arduha samawatu wal ard kon euh, yooyu muy jéggale dafa nekk loo xam ne dafa dafa am solo lool sunu sunu sang bi yonent bi sallallahu alayhi wa ci nga xamante ne nii royukaay la ci njëggal ci fatxu Màkka ñëpp xamee nañ ne nit ki euh, lu lu lu jiitu sax fatxu Màkka ci jamono joo xam ne dafa dafa sonnoon jaaxle lool mooy bi nga xamante ne nii bàyyi euh, euh, bàyyi taxam boobu nelaw na muy Abu Talib Xadija mi nga xam ne da ko doon jàppale nelaw na booba ñoo nga ñoo nga Màkka ñoo ñaar ñoo ñëpp nelaw ci benn at muy soxnaam si ak bàyyi taxam boobu ginnaaw yàlla amatul kenn kenn kenn kenn ku koy aar wala ku koy défendre wala ku koy jàppale mu wataba màkk lànk bañ koo gëm mu ne na dem taif ci ay mbokkam foofa xool ba xam ndax ñooñu danañ ko nangoo jàppal na dañ nangoo tuub ànd ak moom bañ demee ñu boole kook ay gone ñu di ko sànni xeer ba e, tànk yi e, di taq deret Zayd la àndaloon ba Zayd di di di di di fomp deret ji ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu génn dem ba toog ci genn taatu garab wala ci benn miir lu ñu wax waaye yàlla yabal sayduna jibril mu wax ko ne ko day su bëggee moom yonent bi sallallahu alayhi ñaari montagne yi nga xam ne ñoo tiim ñoo tiim taif mu bàyyi ko ñu daanu ci biir taif ñëpp ñëpp ñëpp faatu waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yërmande ji ci njëggal gi dafa ne yow borom bi ixfir lahum fa innahum qawmun laa yaalamun yow yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal leen ndax dañoo nekk ay nit ñoo xam ne xamuñu ëllëg kat mën naa am ñi seeni seeni doom tuub mën na am yàlla génne ci ñoom ñoo xamante ne nii ëllëg ay jullit moom la doon kon loolu misaal bu rëy rëy la ci ci booba dafa néew doole ñu ñu dem ba ci kanam ñu yonent bi sallallahu alayhi sallam ginnaaw ay at waa Madina gëm ko bi mu demee Madina waa Madina topp ko nit ñi yokk ba mu am lu mat fukki junni junniy euh, euh, jullit waa Màkka génne ko biir dëkkam bi muy dellu si waat ànd ak fukki armée boo xam ne fukki junniy nit a ngi ci bi mu ñëwee dugg Màkka ñëpp dañoo defe woon ne dafay ñëw ngir fayu si ndax koo xam ne say noon dañ laa génne euh, jéem laa rey sax mënuñu ci dara nga dem ay at ñëwaat jekku leen waaye keroog lam lam la mu wax mooy izhabu fa antumu tulaqa yéen ñëpp jéggal nañ leen yéen ñëpp boyal nañ leen mooy du fayantoo kenn bari na luñ ci mën a wax nit ma ñëw mas naa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi koo xam ne ab badawi la ñëw poñe ko ba e, baatu yonent bi sallallahu alayhi doon dereetal te lam ko doon wax rek mooy jox ma ci li la yàlla jox jox ma ci maanaam ci li ngay séddale naa ci am yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko muuñ te saxaaba yi merci lool sax ba nga xamante ni am na ñoo xam ne dañ koo bëggoon a dóor waaye yonent bi sallallahu alayhi dafa ne nañ ko bàyyi loolu lépp ci ak mat la bokk waaye tamit ci ci ay ci ci ay jikko yu rafet la bokk euh, te bu ñu delloo ci sunu sang bu tedd bi muy sëriñ Touba tamit ci ak njàmbaaram ci ci ci ci ci ak matam ci ak yërmandeem ci njéggalam gis ngeen ko li ma wax léegi afawtu anil aada i turran li wa ci man nafaahum li xayri sarmadan lat lastu adfaaw kooku nag ku mu nekk sa sëriñ nekk sa royukaay nekk sa yaakaar képp ku la tooñ war nga koo war war nga koo jéggal waaye waroo war koo topp dara moo tax maa ngi soññ sama bopp di leen soññ bokk na ci li ñu li ñu war a njàngee ci ramadaan ginnaaw bu ñu génnee ci weeru koor bi ñu fexe ba jikko yooyu ñu jikko woo ko te te góorgóorlu ci te te te te jihaat ak ak ak ak sunu nafsu ndax ndax ndax ndax Euh, xeex ak sa bànneexu bakken rek mooy tax nga mën a yegg ci ci jikko yu kawe yooyu ndax ad ndax ay tooñ moom mën mënta ñàkk ndax yàlla dafa bind doomu aadama mu manqué saa su nekk day tooñ boromam di tooñ moromam moo tax tolérance ci boppam mën a am nga aaya bi ma wax léegi alaa tuhibbuna an yaxfir allahu lakum xanaa bëggu leen yàlla jéggal leen kon ku bëgg nag yàlla jéggal la say manqué manqué say njuumte war ngaa am tamit xolu di jéggal ñeneen ñi ndax kenn kenn kenn kenn nekku fi nit ku parfait nit koo xam ne dangaa mat sëkk sëkk sëkk amul kullu ibnu aadama xata wa xayrul xataina tawabun mooy ñi nga ñi nga xamante ni muy muy muy nit nit ñëpp yàlla da leen a bind ñu nekk nit ñu manqué ñoo xam ne dañuy tooñ di jéggalu ñu leen di jéggal moo tax ku bëgg a dund ci kaw suuf ne kenn du la tooñ euh, xal xal ngaa sonn euh, moo tax la nekk loo xamante ne nii dafay noppal nit ki tamit ci dund àdduna waaye buñ la képp lépp lépp luñ la wax nga mer wala lépp luñ la def nga bëgg a fayu boo jaaroon ci yoon di dem ku la woo rek nga gestu euh, taxaw wala ku la ne xee nga taxaw doo gaaw yegg fa nga jëm loolu nag ki dul ku dul jéggale it noonu la mel ku dul jéggale ku sonn ci àdduna moom lay doon ndax nit ñi mënuñoo ñàkk di di def ay ay ay ay ay ay fët euh, ak i ak kii ak i ak moo tax njéggale nag euh, dafa nekkul loo xam ne euh, yombul ndax ki muñ rek moom moom moom moo ko man ki ki ki ki am ki am mën a ki am maîtrise mën a mën a muñ mën a supporter lu metti moom moom moo ko man moo tax eh, te loolu képp ku ko def da nga taseek ngërëmul sunu borom subhanahu wa taala fa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajral muhsinin gis nga ko nee na ku ragal yàlla te muñ lu metti luñ lay teg moo xam lu jógee ci nit ñi la moo xam lu jógee ci ndogalu sunu borom la subhanahu wa waaye nga muñ ko yàlla nee na du neenal ñi nga xamante ni nii dañuy euh, fayu fayu ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy rafetal seen seen seen muñ ak seen ak ak ak ak ak seen jëf euh, wax na ne tamit lu am solo li nga xamante ni moom laa mujj wax muy niveau bu kawe yàlla da ko junjaat ci alxuraan mooy nit tooñ la ba noppi waaye nga jéggal ko ba noppi ji ko ay taraanga loolu ni mu ni ni mu mën a rusloo nit waaye ni mu mënee soppi tamit nit ndax képp kuy jéggale da ngay nekk ci position force waaye képp kuy fayeeku tamit da ngay nekk ci position bu faible bu faible moo tax jéggale force la boo xam ne dafay nekk ci nit ki moo tax yéen eh, eh, alquran di wax naan wala wala tastawil xasanatu wala sayyi'a lu baax ak lu ak lu bon lu ñu yem mukk mu ne idfa billati hiya ahsan nit bu la tooñee ne ne eh, dafa indi lu bon teg ne indil lu baax teg fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ki nga xam ne seen diggante ak nooneel da cee nekk wala mu moo xam foofu mooy tooñ goo xam ne nit ki moo ko tey sax mooy mu indi lu bon tek di la di la xas di yàq sa der di loo wax mu mu mu mu boo jaaree fii mu jaar feneen sa alxuraan nee na saa su indee lu bon teg nee na indil lu baax teg bu ngeen ko jàppoo rek nee na benn bis dana mujj nekk incha allah nit koo xamante ne nii ci ñi lay gën a bëgg moom lay doon sa waay lay mujj doon ndax euh, te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wan nañu ko am na ñoo xam ne ci ñi ko gënoonoon noonu ci lañ bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen di jéggal waaye dëkk ak ñoom ci taraanga dañoo mujj dem ba ñi nga xamante ni ñi gën a baax ci ay saxaaba yi moom la moom lañ doon moo tax yàlla wax foofu nekk annahu waliyun xamim waaye bi mu waxee dara lii nii nag dafa ne wa wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru maanaam mooy nit ki indi lu bon nga indi lu baax teg ngeen jàppoo ko saa su la defee lu bon nga defal nga defal ko lu baax saa su la defalee lu bon nga defal ko lu baax nee na loolu dara jëju kawe jooju nee na kenn mënu ko kudul ki nga xamante ni da ngay muñ waaye kenn du dajeek fay gu toll noonu kudul koo xamante ne ni am nga cër ci sunu borom subhanahu wa taala kon dafa mel ni màndargam am cër ci yàlla mooy nit koo xamante ne ni mën nga maîtriser sa bopp waaye mën ngaa jekku ba noppi tamit jéggale nit lu muy gën di jege yàlla di gën a am yërmande nit lu muy gën di am ngërëmul sunu borom subhanahu wa taala xol bi di gën a nooy muy gën a am yërmande di gën a mën a jéggale moo tax nit ku nit nit nit nit lum màgg màgg màgg ci kaw bu fekkee ne day fayantoo rek mën nga waat ne kii daanaka amul dara ci sunu borom waaye nit lu mu gën lu lu mu gën a rafet xol di gën a mën a jéggale di jéllale te woyof te ëpp tolérance du sujet kenn man ma ne koo man nga man nga ne kooku am na cër ci sunu borom subhanahu wa taala kon nag euh, ñu ngi xaw a guddal tuuti ñu ngi soññ sunu bopp di leen soññ rek ci gën a farlu ci ci ci ci ci jikko ji euh, tàggatu ba mu nekk ci ñun di ko xool rek ci sa bopp tamit di ko xool ci sa bopp ndax ku nekk def bëgg nga euh, boo defoon erreur tey ñu euh, ñu jéggal la waaye tamit kon nangay faral tamit di jéggal ñeneen ñi te xam ne kenn matul dayo bi ci nekk rek ci ci ci taseeg ngërëmul sunu borom ak fay gi ci nekk ci tuyaaba jar na saa su nekk ngay natt sa bopp di di di di di di jéggal ñeneen ñi xanaa ma tëjee rek ne jéggale it bala moo mën a am na nga fexe bay jéggal sa bopp ndax nit ki danay def ay erreur yoo xam ne diggante moom ak boppam la bu jéggalul boppam du mën a jéggal keneen ndax nit ki du faaxidu shay'in tii yontihi nit ki li nekkul ci moom mënu koo mënu koo mënu koo jox keneen kon da ngay njëkkee ci sa bopp ba noppi nit ki may jéggal boppam am tolérance ci boppam mooy ki nga xamante ni moom moo mën a jéggal moom moom moo mën a jéggal ñenn ñi te yonent bi sallallahu alayhi nee na ku bëgg nee na ay ay tabax yu kawe kawe kawe kawe ca àjjana nee na nee na yii nii ñeent yi na nga fexe ba def ko mooy sil man xataaka nee na ku la ku la dagg na ko jokk maanaam képp koo xam ne laa bàyyi na ko jàpp wa anti man xaramaka képp ku la xañ na nga ko jox wa wa ne nee na wa waafu am man zalamaka nee na ku la tooñ na nga ko jéggal wa ahsin ila man asa ilayka waaye nee ku ku la ji ñaawteef na nga ko ji eh, njekk ak taraanga ak ak eh, lu rafet kon eh, loolu rek lañ bëggoon a wax ci ne nañu fexe ba balonte ak yi nga xam ne ñu ngi koy def ginnaaw tabaski wala korite mu nekk loo xam ne lu dëggu la ci sunu diggante ak suñuy mbokk yi képp koo xam ne am na lu mu jàppaloon keneen na yëkkati téléphone am wala mu dem seeti ko bu ko manee jéggalu ko te yàlla tax waaye tamit ñi ñuy ñi ñuy jéggalu tamit nañu nañu jéggale te yàlla tax képp ku jàppaloon nit dara ci sa biir xol ak lumu la mën a def ak lu mu rëy rëy rëy maa ngi ñaan boo déggee wax ji nga nga jéggal kooku ci sa diggante ak sa borom ba ba ba doo ko toppati dara euh, euh, leneen li nag mooy loolu waxtaanu boppam la mooy li ñuy tuddee tuub loolu nag dafa nekk weneen waxtaan woo xam ne bu soobee yàlla bu ñu yàlla mayee euh, ñu ci beneen jamono ñu tal ko te fekke ko incha allah bëgg nañ cee waxtaan ndax waxtaanu waxtaanu boppam la kon maa ngi leen di siyaar di ñaan yàlla ñu yegg ci bisub korite gi ak jàmm euh, di leen ci ndokkeel di ñaan yàlla ñu teewee ko ay at di ñaan yàlla sunu borom nangalu ñu ci lépp loo xamante ne ni taxawu nañ ko ci di ko ñaan mu jéggal ñu sunuy gàttañlu ak sunuy njuumte innahu uh, uh, ghafurun rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh